Seexu aw bu këram maa ngi nii ak ñaareelu xaritu jëkkëram ñu ñaar ñoo toog ni dañu jaaxle ci sa ci bi parce que dafa am lu ñu dégg est-ce que c'est vrai blessure bi parce que man dama laajte ñu ne ma du ci tànk te du ci mbagg fan la noonu Seexu waaw aw bu këram waaw waaw maa ngi tane am na ñaareel xaritu jëkkëram waaye maa ngi leen di nuyu du ci tànk du tànk ci mbagg mi quoi <laughs> mais alhamdulilah maa ngi tane. Cheikhou man la ñaareel xaritu jëkkëram alors Cheikhou wax ñu yow it gindi ñu fan mooy miti yow yaa ngi wax du ci tànk bi aussi nga wax ni eh, du ci mbagg mi. li la aawa laaj tontu ñu parce que ñun dañu jaaxle dañu jàq parce que dañuy dégg naan xaw ma dafa sensible point bi nga gaañu ban point la. <laughs> gars yi dañuy wax noonu rek kii la quoi xam nga rek kii boobu dañu tëb quoi bi ñu tëbee après <laughs> après ci la gaañ quoi ci la ma gaañ waaw mais ci tëb bi la Cheikhou Abou Këram fan la la gaañ bi ngeen bi def la mbëkk wala num la demee noonu def la mbëkk ah ndax def la mbëkk. non non non aw Buur Këram non non mbëkkuma xam nga daf ma xaw a xëcc nii bif quoi dafa daf ma xaw a xëcc bif waaw daf ma xaw a xëcc rek bif ma quoi bif. Cheikhou ñaareelu xaritu jëkkëram. mais Bloom Beef dafa jàpp sa loxo Beef la wala dafa xëcc sa tànk Beef la leeral ñu parce que ñun dañu jaaxle. non non ñaareel xaritu jëkkëram déedéet <laughs> du ci tànk bi la Beef de xëccu tànk bi Beef ko ak loxo bi quoi maanaam dafa dafa xëcc quoi ah, dafa am dafa ñor di daal <laughs> dafa xëcc Beef. Cheikhou aw bëgg këram. wa sa le biff bif dafa xëcc sa mayo bif ko mayo kenn du ci Blaise Sefo fan lan la bif leeral ñu quand même on est en train de discuter avec toi leeral ñu ndax sa mayo la bif nga daanu am noo gaañoo wala